billahi mina seytaan rajim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ginnaaw bi ñu nuyoo si Muntaxa Basiir di ko ñaanal suñu borom gudd lool si bàkk si Xadim di nuyu mi xam ne mooy xalifa sëñ Moodu Maamun di ko ñaanal suñu borom gudd aw fanam lool ba yéen yi am ne yëpp suñu borom eggaleel ko si bàkk si Xadim kon mbokk jullit yi mbokk taalibe yi képp koo xam ne gis na jataay bi nga xam ne moom moom lañ toog nii ñu xam ne ñi ngi si li nga xam ne mooy wàccaayu màggalu Daaru Salaam ginnaaw bi nga xam ne li si sëriñ bi joxe si ndigal li si jiitu mooy seet setalu màggalu Daaru Salaam sëriñ bi fas yéene ko àndandoo ak mbokki jullit yëpp mbokki tali bi yëpp yebal ay doomam ñu fas yéene ñëw fii ci jotaay bi ngir woote seet setalu màggalu Daaru Salaam bi xam naa dañuy jox sëriñ Mamoun Mbacke moom sëriñ Abdou Dieng mu jàllale kàddu sëriñ bi su paree ñu jox Mokhtar Wade mu jàllale li nga xam ne mooy jëm si wàllum état bi yu mel noonu mu woo ñëpp su paree incha allah Ndiaga dina jël kàddu gi jàllale ko si turu daayira yi di turu mbootaay yi nga xam ne ñoo nekk si dëkk bi soxna Oumy Diané incha allah dinañ ko jox kàddu gi mu jàllale ko si turu mbootaay yëpp kon sëriñ Mamoune bisimilah kàddu gaay ni sëñ bi da wax ne mbale mi mi ngi tombé ajuma di nekk la vingt cinq incha allahu rabbi bu maa ngi desee juróom-benn fan nee na nag mi ngi ci woo ñëpp képp koo xam ne yaa ngi dëkk Daaru Salaam ak li war Daaru Salaam ak fépp fu waay maa nekk ba Touba. mi ngi woo tamit buntu kër yi yëpp seexi sëñ Touba yi seexi sëñ Gaawaan yi bàyyiwul kenn kenn kenn rawatina nag nga xam ne ñoo nekk fii biir Daaru Salaam muy daayira yi ak jigéen ñi nga xam ne ñoo war mbootaay yi bàyyiwul kenn nee na mi ngi ñaan fépp fu waay maa nekk muy góor jigéen mag ndaw na ñëpp génn incha allahu rabbi ci àjjuma ji ñu bale dëkk ba mu set wicc ndax gan li baax ci moom mooy fu set na kenn ku nekk balaa kenn génn nag na nga commencé sa biir kër ba mu set ba pare bala ngaa bale mbedd loolu daal la wax ne mu ngi ci woo ñëpp ngi ànd koo ganoy dëkk bi waaye daayira bi ak képp koo xam ne yaa ngi Daaru ak fu waay mën a nekk bi bàyyiwut fenn daal ndax ku limite mën ngaa juum bàyyiwut fenn fenn fenn nee daal na ñëpp génn teer la ko gàññ bale dëkk bi ba mu set wicc wicc ndax sëñ gaawaan ku ne xam ne ne ci ak sell moom ak civilisé ci moom la yem kon nag mi ngi woon ñëpp ak suñ mbokki Baye Fall waa ko Cheikh Ibrahima ku ne xam ne seen taxawaay ci mbale mi ba tax ñu ngi leen cee waat bu baax a baax a baax ci kilifteefu sëñ Cheikh Jëmbu Fall ak sëñ Fallou Fall Mourou Aminta mi yor ci kàddu sëñ bi bàyyiwuñ kenn ñi ngi ci woo képp ku yaakaar Cheikh Ibrahima képp ku di murit ci mbalem Daaru Salaam mi wasalaamaaleykum wa kon ñun dañuy woote si euh, administration bi nga xamante ni tàmbalee ko si ministère de l'environnement xam ne lu ñuy def nii moom lañ ñoom lañ koy defal xam nañu gan ak ganale moom lu si jiitu mooy set dëkk bi set ba pare comme ni ko sëriñ bi waxee loolu nag moom kenn waruñu see jiitu ñun taalibe yi waaye ministère de l'environnement bi nga xamante ni ñoom ñoo yor loolu si dëkk bi si réew mi ñoom ñu ngi leen si jiital ba pare ñu ngi soxla nañ accompagnement lu jëm si ay matériel yu ñuy nettoyer ay brouette wala ay bale ay pelle wala ay camions yu mën a tuuri mbalit sax soxla nañ ko. loolu nag moo wàcc ba ñëw ba si mairie yi nga xamante ni ñoo ñu seq ñaari mairie yi seq dëkk bi di mairie Touba sëñ Abdou Lahad Ka ak mairie Mbacke di sëñ Abdou Mbacke Ndaw jiite leen ñooñu tamit wax dëgg yàlla at mu jot ñu ngi ko daan ànd ak ñun. kon ñu ngi leen si woowaat di leen wax niñ ko daan defee rek ñu defee ko noonu ñu jàppale ñu si ay oto. ak bépp matériel boo xamante ni mën nañoo jariñ waa UCG yi nga xamante ni tamit ñoom ñu ngi fii di setal dëkk bi ñoom tamit nekk suñu partenaire at yi bi ñu ko commencé ba léegi depuis 2017 ba léegi ñu ngi ànd ak ñun ñoom tamit ñu ngi leen si woo di leen wax euh, ñu jàppale ñu si liggéey bi xam ne lu ñu si def rek ñoom lañ si jàppale ndax da dëkk bi wax dëgg yàlla ñoom la war si zaahir kon bu ko defee daal mbale bi mi ngi noonu ajjuma la le 25 juin 2021 fii si Daaru Salaam ñu ngi si woo ñëpp bàyyiwuñu kenn jërë ngeen jëf mboolem ñi fi teew ci ndigalul sëñ Abo ñi ngi woo ci mbale moomu mboolem waa kër maam Cheikh Anta Mbacke ak fu ñu mën a ne ndaxte ñoom la ñuy liggéeyal dañ leen di teewal ci tool yi kon liggéey bi ñoom ñooy borom kon fépp fu waa kër maam Cheikh Anta Mbacke mën a nekk muy góor muy jigéen muy mag ak ndaw ñu ngi lay woo ci liggéey bi ci bis bi ñu ngi ciy woo it suñ mbokki Baay Faal yi nga xam ne. képp koo xamante ni day jóg di liggéeyal sëriñ Touba ñoom ngay def royuwaay ci liggéeyal sëriñ Touba kon ñu ngi ciy woo mboolem Baye Fall yëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi ciy woo it waa tubaa ci kanam ngir seen pas-pas ak seen taxawaay ci liggéeyal Cheikhul Khadim bi ñu ngi ciy woo it mboolem daayira yu nekk diggante tubaa ak Mbacke ba ci sancaan yi ci njiital sëriñ Fallou Tine ñu ngi ciy woo mboolem association yi nekk diggante Mbacke ak Touba waa daayira Mabdul ni ci njiital sëriñ Abdoul Lo ñu ngi ciy woo soxna maa Isa Axlu Kafe ni ko jëwriñ yu baax yi waxee léegi ci pas-pasam ak taxawaayam ndaxte bañ tàmbalee liggéey bi ba léegi da koy ànd ak ñun di ko defee lu lu kawe njortu euh, euh, ci jëwriñ yi ñu ngi ciy woo waa Croix Rouge bi nga xam ne ah lépp loo xamante ni taxaw nañ ko daanañ ci feeñal seen yéene ñu ngi leen di woo ngir ñu ànd ak ñun liggéey bi képp koo xamante ni rek da ngay ñëw wala nga bëgg leeral lépp loo ci bëgg ci ak leeral rek man ngaa woo ci numéro yi mën ngaa woote ci numéro yi muy 77 689 63 63 77 689 wala nga woote ci 76 696 62 76 76 696 62 76 kon wasalaamaaleykum wa rahmatullah man soxna Rama Cissé maay wax ci kàddu jigéen ñi ci ndigalal soxna Ndey mi nga xam ne mooy suñ jëwriñ ci mbalem daaru salaam bi ñu fa yéenee waajal nag mbale mi waajal màggaluk daaru salaam te di ci woo ñëpp nag te màggal ku ko wax wax ak cet set tamit ku ko wax wax jigéen ndax jigéen moo wara a setal ndax euh, suñu mbokku góor ñi dañ ci jàppale rek waaye mbale mi ñun jigéen ñi ñoo ko moom. mbooleem mbootaay bu nekk ci Daaru Salaam nag njiit gi di soxna May Gueye ak soxna Oumy Diané soxna Ndey Assou Kébé ak soxna Rama Cissé ñi ngi woo mbooleem mbootaay boo xam ne rek yaa ngi ci Daaru Salaam yaa ngi ci tuubaa yaa ngi ci Mbàkke ñoom ñun ñëpp ñu takku taxaw su àjjuma ñu àjjuma le cinq ñun ñëw ci mbalem daaru salaam mi fas yéene nag kenn ku nekk commencé ko sa biir kër commencé ko sa biir koñ ñu génne xale yi génne képp koo xamante ni mën ngaa set setal rek ñu génn ñu setal mbedd yi ndax fas nañu yéene màggal gi doon màggal gu mucc ayib goo xam ne mosu fee am kon nag la koy tàmbali mooy ñu setal ko ba mu set wecc nañ setal dëkk bi setal dëkk bi nag ñun jigéen ñi ñoo ko moom nañ àndandoo takku taxaw ñoo ngi ciy woo ñëpp nag bàyyiwuñu Baay Faal yi bàyyiwuñu mag bàyyiwuñu ndaw eh, mbootaay tamit ku lim juum waaye maa ngi woo mbootaay yëpp mbootaayu Tuubaa ak mbootaayu Mbàkke ak fu waay mën a nekk tey tey jigéen rek ñoo ngi lay woo ci mbalem daaru salaam mi ñu bëgg nag dëkk bi set wécc ci balaa gan ñee dikk nañ fas yéene dëkk bi set mel nam nam daan mel mbaa nu ko raw tey ñoo ngi woo waa Touba ca kanam ñu ñëw jàppale ñu ci mbale mi ñoo ngi woo ab Abdou Mbacke Ndaw di woo directeur Galo Ba ñun jigéen ñi ñoo leen woowal suñu bopp ngir ngeen ñëw jàpp ñu ci mbale mi ndax mbale moom kenn ku ko xam ku ne xam ne aajo woo nañ ay bale aajo woon nañ ndox muñ naan aajo woon nañ ay poubelle aajo woon nañ ay brouette nit ñu ñëw jàppale ñu ci mbale mi mën nañoo takk nag taxaw nekk ci naaj wi di liggéey waaye ñoom tamit nañ ñëw jàppale ñu bu baax Touba ca kanam ñi ngi lay woo ci mbale mi man nag maa ngi waxee ci kàddu soxna Ndey Diop mi nga xam ne mooy suñu jëwriñ ci njiitum mbalem daaru salaam mi wa salaam jërë ngeen jëf. kon nag mbokki jullit yi loolu mooy woote bi nga xam ne sëriñ bi wax na ñu woo ko mbokki daayira yëpp ak fu waay mën a nekk booy ñëw incha allah nga woote si numéro téléphone yi foo mën a nekk rek incha allah yéen oto mu jël si la ñu ngi woo ñëpp bàyyiwun kenn góor ak jigéen mag ak ndaw ajjuma incha tombeek le 25 jërë ngeen jëf.